waat naa la encore tey maa ngi encore fii nga xam ne kër kilifa diine la boo leen gisee tey euh, ni ma changé waatoo rek euh, jël kol teg ko sama kaw ngeen xam ne kilifa la seet si maa ngi fii nga xam ne muy face de l'orme ginnaaw bi ma jugee nag fële nga xam ne muy wakaam euh, jugee ci Abdoulaye Diouf Sarr gis ngeen entretien bi nga xam ne jot nañ ko def ni mu amee solo te ni mu neexee ba pare neex a dégg joxe ay leçons yu ama am solo tey nag ñoo ngi fi encore ci face de l'orme face de l'orme nag ñoo ngi kër sëñ Moustapha Euh, si Djamil euh, donc seet si doomam bi nga xam ne muy euh, Cheikh Omar si Djamil donc dañ koy daal di nuyu bàyyi ko mu nuyu sénégalais yi koy seetaan ñu daal di yaatal li nga xam ne mooy inter interview bi. asalaamaaleykum soxna Keyna ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen baalu ak di leen déwénu ko ci koor gi di ñaan yàlla yàlla yàlla yàlla ñu ko yàlla defal kooru jàmm bi nga xam ni génn nañ ci. lépp lu luñ ci jaamu yàlla nangul ñu ko bis bi nga xam ni tey moom la mooy korité bi tamit ñu déwéniku leen bu baax baalu leen àq di leen baal àq di ñaan yàlla mu boole ñu baal di baal di ziar kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk ci senegal yëpp di leen ñaanal yàlla yàlla may leen gudd fan bu ànd ak wér di ziar xalif général de Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour di ko ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan bu ànd ak wér liggéey yi nga xam ne tamit mi ngi ko naal jëmale ko ci xadara bi yëpp yàlla may ko kàttan ak wéer bu mu ko yeggalee ak sago nuyu ñëpp ziar ñëpp di nuyu waa télévision 7 FM ak képp 7 TV ak képp koo xam ni ma nga ca télévision bi di fi yëngatu ñu di leen ndokkeel bu baax ci dox yi ngeen jéego yi ngeen jéego ba yegg si fii ñan yàlla yàlla na ko yàlla def tànk yiw ak barke ak sutura ak fajug aajo amin macha allah amin di daal di naan amin rek ah, donc kon gis ngeen ki ngeen xam ne mooy Cheikh Omar si Djamil ah, donc nuyoo bi nga xam ne ah, nuyoo na ko mu nekk nuyoo bu ama am solo ñaan yi tamit ñuy naan amin di ko daal di nangu donc nag comme ni ñu ko daal di defee kër kilifa bi nga xam ne fa la ñu jugee defee ko kër kilifa yépp fu ñu jugee dañuy daal di tàmbali ci koor gi ginnaaw nag Cheikh Omar Euh, euh, génn nañ ci koor gi démb ndax démb woor nañ tey lañu ñu korite mhm. koor gi naka nga ko dundee euh, métti woon na ndax lan moo nekkoon sa passe ci koor bi koor gi xam nga macha allah dafa nekk dañ nekk ci dëkk bu xaw a féex tuuti fan yi weesu génn naa dem Thiès dem ci Tivaouane waaye gis naa fa tàngoor bu tara tara kon boo nekkee dakaar mu féex féex gi wax dëgg yàlla amul jafe-jafe trop ci wàllu koor gi tàmm nañ ko surtout bu fekkee ni da xëy suba ba ngoon di liggéey da ngay nekk ci anam boo xam ne xëy na doo ko yëg noonu ngoon gi xëy na dinga sonn tuuti rek waaye ñun xam nga rek kooru taalibe lañ koy def boo lekkee ñaari tàndarma rek li ci des da koy daal di mottali ko turu yàlla kon looloo tax ñu mën koo dem ak eh, ci jàmm génn ci ci jàmm wax dëgg yàlla amuñu ci jafe-jafe trop nag macha allah. alors naka ngeen ko doon dundee fii ci biir kër gi parce que ginnaaw bi ñu ñëwee ci kër gi fekk nañ fi ay euh, nit yu yiw nit yu sell ah, donc juma bi ci côté bi ah donc ndax da ngeen doom koor képp képp ku xam taalibe Cheikh xam na ko ci baatu laa ilaha illallah ah, donc baatu tudd yàlla donc koor gi ndax euh, ci suba ci ba ngoon bi heure ndogu ah, da ngeen di euh, liir li ngeen xam ne mooy arxulaan bi wala da ngeen di jàng li ngeen xam ne mooy. arxulaan bi wala boo leen dogoo ba pare ngeen koy def heure naafila xam nga kër gi déjà am na benn daara bu fi nekk daara joo xam ne macha allah am na lu mat huit cent cinquante élèves yoo xam ne ñu ngi fi di jàng di fi jàng alxuraan guddi ak bëccëg kon euh, ñoom déjà bëccëgu koor gi yëpp mën nañu wax ni daanaka ñoom ñooy nekk ci biir diggu kër gi di jàng alxuraan fii bu ñu xasee ba ndogu am na naafila boo xam ne moom la def ci jàkka ji boo ñëwee fii heure naafila fii yëpp macha allah day am ay nit yoo xam ne dañuy bàyyi ko fu nekk di fi ñëw di la bu ñu ndogoo am na ci léeg-léeg ñu ànd ak euh, sëñ Mansour ci ay waxtaan lu ñu wax yi nga xam ne jëm na ci wàllu diine. bu ñu ndogoor fii tamit dafay xumb macha allah waaye ku nekk da ngay nekk sa kër lee léeg ñu ñëw fii ñun ñëpp surtout àjjuma nga xam ne day ànd ak xadara ànd ak wasifa bu ñu wasifa ba pare xadara ba pare ñun ñëpp ñu daje ci saal bi nga xam ne fi lañ nekk nii nga xam ne ñëpp fiy daje di waxtaan di génn konte ci wàllu diine waaye tamit di def yëfi njóobeen di def yëfi njaayeen loolu tamit du ci ñàkk xam nga loolu moom macha allah dëgg yàlla moom daan nañ ko def fii waaye tamit euh, di fi jàng alquran euh, bis bu nekk di di di di di naafila léeg-léeg euh, laylatul qadri bi passé fii lañ nekk ba daanaka cinq heures du matin di jaamu yàlla di tudd yàlla di def si di def salaatu tasbih di def yu bari daal yoo xam ne jëm na ci ni di jullit di war a dundee kooram te dëgg yàlla amu ci benn jamono joo xam ni dañuy nekk ci leneen lu neexul yàlla lu dul li nga xam ne moom nañu war a dundee ci wàllu koor gi wax dëgg yàlla. macha allah loolu am na solo euh, comme ni ma leen ko waxee rek euh, tantôt nee naa leen carrément euh, taalibe cheikh moom boo leen ko déggee donc làmmeñam dafay sax ci tudd yàlla ba tax na boo leen gisee ci taar bi ci jekk bi ci civilisé bi mais aussi ci gëm bi nga xam ne moom rek moom la ñu gëm suñu borom donc nag ginnaaw démb la ñu def mu jëntal koor. Mm-hmm. tey ñoo ngi ci li nga xam ne mooy korité donc korité bi tey baalonte ak bi naka nga ko dundee yow ak sa famille. waaw fii lañuy ñuy jullee ci suba suba wax dëgg yàlla njaboot gi yëpp fii lañ daje ci jàkk ji sëñ Mansour Sy Djamil jiite ñu góor gi ñuy wax Pape Oumar Fall nga xam ni bi fi euh, bi fi Pape Mor Ndiaye nga xam ni moo nekkoon imam raati bi euh, kër gi fi bàyyi ko moom la fi sëñ Moustapha teg moom la fi sëñ Mansour teg sëñ Mansour sax fekk na bi góor gi di génn àdduna boobu sëñ sëñ Mor Ndiaye génnagul àdduna waaye bi mu làqoo moom la fi sëñ Mansour teg muy Pape Oumar Fall moom tey yàlla dogal na mag la waaye malgré loolu yëpp dafay ñëw fii chaque korité chaque naafila bi yëpp moo ko daan def aadatan waaye léegi dem na ba xale yi nga xam ne ñu ngi jóge ci daara ji ñoom ñooy def euh, naafila bi waaye tey ci bisu korité bi moom moo ñëw ba fii jiituñu ci ndigalu sëriñ Mansour Sy Djamil daf waxtaan wu neex a neex xale yëpp fekke ko ñëpp dellu siwaat ci yàlla mu wax leen naka la nit ñi war a dundee seen diggante maanaam nee na li gën a garaaw ci tariqa bi loolu lañ ci gën a jàpp mooy que du sax diggante taalibe bi ak ñëpp te mi ngi wax téere bi nga xam ne mooy fakihatu tulaab nga xam ne Seydi Hadji Malick moo ko bind ci tariqa cheikh di wax ni que li gën a garaaw ci àqu bi nga xam ne nit war na ko amee ci biir tariqa bi mooy sa digganteeg sa mbokk taalibe naka ngeen war a jàppante ba benn ñaaw teef warul dox seen diggante beneen àq warul dox seen diggante te loolu defe naa insister na ci bu baax a baax a baax tey te ñëpp dégg nañu message bi te incha allah ñuy ngi ñaan yàlla yàlla may ñu ay nopp yu ñu ko déggee ay nopp yu ñu ko toppee. macha allah en tout cas loolu am na solo donc boo bokkee ci kër li nga xam ne mooy kër diine danga nga war a fësal li nga doon ba tax na tey dañ koy daal di jël waxtaan bi rek yemale ko ci biir diine gi euh, ba tax na aussi li nga xam ne mooy euh, euh, tabaski korité ñu gis ne sénégalais ñoo warandoo. alors euh, tey ren korité bi nekk ñaari korité ñi korité nañ démb am nañu korité tey donc yow en tant que ki nga xam ne mooy jullit naka nga gisee phénomène boobu et que aussi gis nañu seen xalif général aussi euh, génnoon na daal di wax ne carrément weer bi euh, feeñu dafa exiger ñëpp daal di woor euh, rek li nga xam ne mooy démb mm-hmm. et que aussi xalif généralu murid yi génn nañ waa ñaseen yi tamit génn nañ ñu bari génn nañ mais am na aussi ñi nga xam ne nee nañ gis nañu rek li nga xam ne mooy weer bi donc yow en tant Euh, ki nga xam ne da ngeen am xalifa euh, bi ngeen xam ne moom ngeen di topp naka ngeen gisee phénomène boobu. xam nga man li may wax rek toujours mooy question weer bi dafa nekk une question extrêmement sérieuse du loo xam ni dañ koy aborder ak légèreté te yaakaar naa ni euh, boobu ba léegi nit ñaa ngi nit ñaa ngi tergiversé ci question weer bi mais dama bëggoon wax juste rappeler un fait gis nga. bu weer bi di teru nit ñi boo demee Tivaouane boo demee Touba boo demee Niassane boo demee Thiénaba kër diine yi dañ koy dañ koy saytu avec beaucoup de minutie ay beaucoup de sérieux boo demee que sëñ Abdou tey ji al amin sëñ Abdou dafa am commission am ay nit yoo xam ni boroomi xam-xam lañu ñooy teg seen téléphone boobu temps bañ ko daan def téléphone fixe moo amoon benn lañ daan teg ci digg bi wër ko moom mu toog di superviser loolu sëñ Mansour am commission ay olama yu bari yoo xam ne tey jii ñi ngi woon Tiwaawan ñoom Pape Assane Diop ñoom Pape Malick Faye ñoom Oustaz Ngiraan ñoom Moustapha Sarr ñooñu ñoo ko daan wër kàngam yooyu nga xam ni kenn mënu leen duut baaraam ci wàllu charia ñu teg seen téléphone di déglu Alaaji Abdou ca saaw moom it am commission di déglu fépp fu ñu ni xibaaru weer bi am na fa duñu ñu ci li nit ñi di annoncé ci télévision bi mais fañ ne Tamba am na fa dañuy woo président daayira ba fa nekk dañuy woo muqaddam ba fa nekk ni ko demal nga seetal ñu imam bi lan la dégg ci weer bi mu dem seet imam bi ñu ni ko ah fii kat xibaaru weer bi yegg siwu fi su ko defee bu nit ñëwee ni gis naa weer bi Tambacounda wala gis naa weer bi euh, euh, Kaolack wala gis naa ko barab sàngam loolu ñoom du leen doy ci xibaar fokk ñu leerlu pour xam benn ki ko gis ndax maanu na ndax ñoom doy na leen ba pare ñu doog a xool ndax xibaar bi wér na li ñu seetlu ren mooy bi ñuy tàmbali koor koor gi gis naa ko sax xale yi di ko wax ñëpp dañu statut weer bi filmer ña fa nekk ni ñii ñoo gis weer bi weer waa ngi nii barab sàngam ñu filme ko photo ko posté ko ku nekk statut ko mais bu ñu demee ba nga xam ni desul lu dul ñu war a wari man dama dégg rek ñu ni barab sàngam am na juróom-benn nit yu ko fa gis barab am na ñett nit yu ko fa gis barab sànga te amu ci kenn ku mën a jël sax sa portable photo ko wala nga filmer ko wax ña fa nekk ñan lañu fan lañ dëkk ak fu ñu soqi ko jël impliqué ci imam ba fa nekk ca gox ba parce que loolu procédure la boo xam ni fekk toppuñu ko dañuy juum duñ ñi nit day woote rek ni gis naa weer bi nit ñi daal di wari responsabilité kilifa yi ëpp na foofu mhm. benn ñaareel ba mooy am na ay scientifique yoo xam ni dem nañu ba saytu nii tey amul fu nit mën a jaar ba gis weer bi bis bi ndax dafa am loo xam ne dafay gàllankoor gisum weer bi kon bu yooyu yëpp dajee ma yaakaar ne nit ñi nañu gën a maanu ku ci bëgg a wori parce que Arabie Saoudite woori na wala bés bërëb sàngam wari na nga wari waaye ku wariwul bul ko nekk di xarab ci réseaux sociaux gi dégg nañu ba tàyyi sëñ Abdoul Amine wax procédure ma la wax nii expliqué nañ ko ni nag nañ ñu dimbali parce que am na ci loo xam ne tamit seen responsabilité la ay nit dañ leen di déglu doo ñëw rek ni leen weer bi feeñ na béréb sàngam ñu daal di wari ci loo xam ni teguwul ci ci ci ci ci lu wér kon ñoom dañu am responsabilité am na ñu koy saytuloo ñooñu tamit boo demee li xew Tiwaawan loolu moo xew Touba dañuy saytu weer bi avec beaucoup de sérieux kon nag ngalawaay man yaakaar naa ni buñ ko def bu sëñ Cheikh rek li sëñ Cheikh daan wax rek laa ci laa ciy dolli buñ ko neen loo xam ci ñaari korite yi loo xam ci ñaari tabaski yi moom def ki indi tontu bu xaw a woyof bu ko defee nit ñëpp féex mu ni neex rek yàpp gu bari rek boo tabaskee fii dem tabaski fële ndax buñ ko defee objet de divergence entre les musulmans du question boo xam ni question bu bu bu récent la bu récente la question la boo xam ne depuis des années dans les plus grands pays musulmans les jordaniens ñoo ci gën a avancé avec les marocains sur l'utilisation de la technologie et de l'astronomie et de l'astro euh, dans la dans la dans ci affaireu ci affaireu saytu weer bi ñooñu def nañ ci ay études yu poussées man dégg naa fi ay borom xam-xam yoo xam ne ñu ngi nekk biir Sénégal def nañ ci ay études yu poussées loolu dañu war a continuer di waxtaan ndaxte jamono toll na foo xam ni tey américains yi bu leen neexee ñu jël seen drapeau dem samp ko ci weer bi ku mën a xam fi weer bi nekk ba dem samp fa drapeau depuis kooku fu weer bi nekk jaaxalu la est-ce que feeñam feeñul jaaxalu la donc xam-xam yegg na foofu waaye nag su fekkee ni dafa am loo xam ne da ko tënk ci wàllu sharia ba mu ni la lii boo ko gisee wooral boo ko boo ko boo ko gisul wooral boo ko gisee waril yaakaar naa ne nañu nañu may nit ñi ñu gëm li ñu gëm ku ci nekk def li nga xam ne moo la moo day moo dal sa xel bu ñu demee ci kanamu yàlla nag ki nekkoon am na ci tax maa ngi dégg benn jour sëñ bi di ko di ko expliquer ni am na ci ñoo xam ne def nañu ay étude pour wax ni depuis quatre-vingt-dix-neuf ans bis nit ñi bis biñ ñi mooy wari mooy koor du koor bis biñ ñi mooy arafaat du arafaat bis biñ ñi mooy tabaski du tabaski ndax nit ñi dañ koy teg rek ki ay supposition yoo xam ne ay calcul léeg-léeg ñu ni gis nañ weer bi wala léeg-léeg gisuñu weer bi loolu yëpp loo xam ni la jullit yi war nañ ci toogaat def ci ay saytu yu baree baree bëri bu fekkee duñuy jël ñoom ñëpp tënku ci calendrier nga xam ne bu ñu nee weer bi feeñ na barab sàngam ñëpp ànd ci ñu xam ne loolu mooy li yàlla dogal ñu ànd ci loolu loo xam ne je comprends yow da nga bëgg nit ñi di korité wala di tabaski benn fan benn benn mu doon benn korité wala benn tabaski kese loolu man dérangé wu ma parce que charia moo ko wax que tey bu weer bi feeñee fii te feeñul barab sàngam ñii bu leen neexee bañ a wari ñii wari loolu lu charia d'accord la ba pare kon kii korité tey kii korité ëllëg du problème ci diine buñ ko indi mu nekk un problème entre les musulmans léegi nag su fekkee ni ñëpp fekkee ni consensus bi daf leen arrangé parce que consensus bi tamit ci ci ci ci ci atte la su fekkee ni loolu moo leen arrangé mais nañu xool ban yoon la ñu war a mën a jaar ba ñëpp ànd ci mais man gëm naa ni que c'est une question extrêmement complexe et extrêmement difficile entre les pays musulmans léeg-léeg pour des questions géopolitiques am na ci ay dëkk yoo xam ne duñ bokk jour korité duñ bokk jour jour korité loolu nag nga ci mën a sukkandikoo pour jël une unanimité à travers avec les musulmans ça va être très difficile li may ñaan daal mooy nañu maanu suñuy diggante bu kenn ni kii ki wari tey du jullit wala ki wari tey dañ koy xarab wala luy demee noonu yooyu dafay yàq ay diggante surtout que ñu nekk ci Sénégal boo xam ne ñu ñëpp war a bokk ndey ñu ñëpp war a bokk baay yooyu daal dañ ko nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax. en tout cas c'est important et que je sens que moom bi muy wax dafa wax avec le cœur mm-hmm. ah, donc ku nekk na nga gëm li la gëm et que nga def li nga xam ne moo doy euh, si sa dine ah, ba tax na tey aussi korité bi ñëw nañ gis nañ ambiance bi fekk nañ la nga nekk en famille mm-hmm. ah, donc naka nga ko dundee exactement euh, baaloonte ak bi euh, tey mm-hmm. nit ñi da ngaa da nga amoon nga ay gan yi nga xam ne dañ laa baalu si ak waaw diñu daan ñëw rek xam nga fii ku ci nekk da ngay am da nga am loo seq ak waa kër gi di ñëw baalu àq mbokk yi ñu nga fi fekk sànq suñu ay rakk lañu ñoo xam ni euh, ñëw nañ fii ànd ak seen njaboot yëpp baalu si àq ki leen gunge suñu mag la ñi fi nekkoon suñu ay goro lañu suñu ay soxna lañu fekk ngeen fi soxna sëñ Mansour Jamil muy soxna Ayda ak ñi nga xam ni ñëpp ñoo bokk kër gi ñu ñu toog fii toute la journée di waxtaan di di di vraiment di baalonte ak di fàttalante jamono di waxtaan ci question yu bari nag fii moom tey question yu bari débattre nañ ko fi waaye loolu yëpp dafa nekk dafa bokk ci euh, li nga xam ne moo moo nekk euh, bis bi moo ko màndargaal bisu korite la bisu mbégte la jóge nañu ci koor gu muy weer bu xaw a éprouvant waaye tamit bu demee ba yàlla dem ci cappaandaw la nga yëg ci ni tey jii yàlla def na xëy na amoo ci rëcc rëcc wala boo boo ci amee rëcc rëcc nga ñaan yàlla mu baal la ko bisu tey bi nekk bisu mbégte ñun ñëpp ñu ànd bokk def ko dans la join et la et la et la dans et la plus grande euh, fraternité voilà ça que je voulais dire. en tout cas euh, aussi ku ne Tabaski-Korité day daal di xalaat directement li nga xam ne mooy viande blanche maanaam ginaar ñëpp ginaar la ñuy daal di euh, jël ko ci jouru Korité alors que euh, koor gi euh, laataa muy egsi euh, am na ñu ne sax ba mu egsee quelque jours rek dafa daal di am feebar bi nga xam ne dugg si na si muy grippe aviaire donc nag ñëpp xam nañu ne grippe aviaire ça date pas d'aujourd'hui c'est depuis 2003 donc mu jugee si picc yi jugee si dëkk bee nga xam ne mooy Vietnam donc fa la daal di sokkee ko mais ñu gis ne ren pénaliser na ñu bari ci wàllum korite gi ndax ginaar manqué na bu baax a baax a baax est-ce que yow exactement sentir nga li nga xam ne mooy Euh, ginaar gi ni mu manqué wala euh, da nga jënd euh, xar wala lan nga lan nga korité exactement. xam naa ni daal macha allah xéewal yi ba bari woon na fii te yaakaar naa su ma juumilit ginaar amoon na ci waaye man dama am benn gàllankoor boo xam ni dama am gut xam nga boo amee gut dañ lay tere nga lekk lépp luy viande rouge kon bis bu yàlla dogalee grippe aviaire bi law ba ginaar dootul am ci Sénégal kooku moom wax dëgg yàlla ñun ñi jën rek la xal di dundee ndax boo ko amee moom dañ lay ñaar nga mën a lekk jën wala ginaar kon nag dañuy ñaan yàlla yàlla def girib boobu yàlla teggi ko ci jàmm te Sénégal rek waxuma la ñun rek waaye àdduna bi yëpp tey jii girib boobu feebar la bu fi am ñaan yàlla yàlla teggi ko ci jàmm ni mu fi teggee woon Covid bi ba tey jii ku nekk mën a delluwaat ci sa sago yaakaar naa ni euh, dëgg yàlla loolu daal lu am solo lay doon surtout pour ñi nga xam ni bien rouge duñ ko laal kon nag loolu rek la ñu yàlla mën a yooyu yàlla xéewale en tout cas viande rouge amul bàyyi xel kër yi ma jugee yëpp bi ma leen laajtee lan mooy seen euh, euh, viande préférée dañ ma wax ne viande blanche moo leen gënal ah, ba tax na dañuy génn ci korité bi génn ci lépp li nga xam ne mooy weer beet euh, koor geet yëpp ñëw ci li nga xam ne aussi mooy jumaa ji ah, parce que bokk na ci li gën a tax ma choisir la encore si sama entretien ah, donc ginaar bi xam ma naan ginaar sax xam naa tey pël yet joolaay dinañ ma simmi <laughs> mais ginaar yi si boppam tey moo waral coow bi muy korité donc mi ngi noonu donc li nga xam ne mooy mosquée bi bi euh, fan de travaux yi exactement toll. waaw balaa may dugg rek ci mosquée bi ma wax ni que nag li gën a am importance ci koor gi ak ci weer mooy li nga xam ni mooy tudd yàlla yi nga xam ni moom lañ ci doon tudd te nag bu ñu topp rek ginaar yeeg nu mu tuddee ba yaakaar ni dañoo ubbiwaat bunt yëpp ndax koor gi li nga ci nekk yëpp entraînement rek la pour que li des ci at mi nga mën ci sàmmoon sàmmonteeg euh, ñag ci sa bopp. ba mën a sàmmonteeg sa sa bopp ba nga xam doo ëppal ci lekk doo ëppal ci naan doo ëppal ci topp sa bakkan doo doo sax topp sa bakkan da ngay tënk sa bopp ndax noonu la yàlla def ñu dundee ko weeru lëm li nga xam ne nag moo jëm ci wàllu jumaa ji wax dëgg yàlla laaj nga laaj bu am solo te yaakaar naa ni tey jii fi ñu toll nii xalifa bi sëriñ Babacar Sy Mansour liggéey bi mu tàmbali ca Tiwaawan liggéey bu am solo la te Sénégal yëpp nag war nañ ko ci jàppale te Sénégal yëpp ñu ngi ko ciy jàppale ndax ba mu wootee le 14 septembre 2020 ba léegi ci benn guddi ñoom jot nañ ci dajale lu ñeenti milliards su ma juumul ci benn guddi boobu ak léegi bi liggéey bi tàmbalee au mois de mai 2021 ak tey ji nga xam ni dafa def daanaka deux ans jour pour jour lépp loo xam ni gros œuvre la pare na ci jumaa jooju les treize corps de métier yi nga xam ne ñoo war a yeggali jumaa ji entièrement contrat yi ñu ci waroon signé yëpp signé nañ ko tous les euh, son sont tey jii bu ñu la nee gannaaw suba lii dina pare ña koy def am nañu xam-xam bu wér pour wax ni danañ ci yegg bi ci des mooy am na tey jii ñu toll nii lu mat deux cent vingt yoo xam ne ña nga ci biir jumaa ja di liggéey lépp loo xam dafa jëm ci wàllu décoration lu jëm ci wàllu sonorisation jumaa ji dafa nekk une mosquée verte xam nga tey boo nee mosquée verte concept la boo xam ni bëgguñu mu am dépendance énergétique trop ci yenn yi comme les énergies fossiles ak yooyu ay pétrole ak yu demee noonu tax na tey jii ñu def fa benn centrale solaire boo xam ni lépp lu jumaa ji war a soxla ci wàllu courant ak gox boobu dañ leen ko fournir ba pare di fournir Senelec électricité benn ñaareel ba am nañ fa benn forage boo xam dem na ci 500 mètres ci suuf loolu dafay tax tey dépendance bi en eau lépp ñu mën ko euh, indépendance en eau ñu mën ko assurer ba pare <clears throat> bi ci des mooy euh, c'est une juma jumaa joo xam ni dañ koy connecté tey foo toll ci jumaa da nga am nu mu tuddee connexion internet climatisation bi c'est une climatisation à eau glacée nga xam ni trois trois trois blocs de huit cent kilos nga xam ne dafay assurer vingt quatre degrés dans tout la mosquée qui fait vingt sept mille euh, vingt sept mille mètres carrés vingt sept mille mètres carrés c'est deux hectares et loolu dafay permettre tey non seulement ñu am une capacité de de de de de vingt mille personnes à l'intérieur et vingt mille personnes dans sur l'esplanade ba pare nag mu am li ñuy tuddee benn benn benn système de d'ouverture des portes électriques benn commande lay am ba pare moom les parasols yi nga xam ne moom ngay fekk Médine moom lañ fay def yi nga xam ne moo nekk ci rawdu yonent bi entreprise bi doon defar parasol yonent kër rawdu bi moom mooy defar tey parasol yi nga xam ne moom la ñuy installé à Tivaouane en tout cas liñ ci séentu sur le plan énergétique et sur le plan sur le plan énergétique ak euh, sur le plan euh, architectural yëpp dafa nekk lu ama ama am solo loo xam ne xalifa bi yéeneem sax ëpp na foofu tey bu mënoon am juma or dina ko def ndax dégg nañu bi ñuy lancé projet bi fële ca euh, Grand Théâtre bi ñuy wax sëñ Mansour si Djamil dafa ni rien n'est trop beau pour Seydi Hadji Malick kon yaakaar naa ni yóbbu na ko ci anam boobu waaye jumaa ji tey boo ko dee xool dafa am beneen rôle boo xam ne war na ko mën a jouer ndax si un projet de vingt milliards ci benn gox fokk moom impact ci naka la gox boobu di dundee tey boo dee xool am na deux secteurs yoo xam ne jumaa bi dafay positionné wu benn bi mooy le tourisme religieux benn bi mooy le tourisme d'affaires boo déggee tourisme d'affaires mooy ñi nga xam ne ñooy dem ci congrès yi dem ci séminaires yi dem ci yeneen daje yu demee noonu nga dem Tivaouane au la de jumaa ji am nañ fa tey benn salle de conférence boo xam ne c'est de mille place tey boo déggee mille places salle yi ngay dégg nii au Sénégal yi bari àggul mille place benn ñaareel ba aéroport u mi ngi dans la région de Thiès donc c'est à quinze minutes ou bien à 20 minutes de Tivaouane ñaareel ba nga am benn hôpital boo xam ne ña ngi ko fay tabax benn hôpital quarante 46 milliards de 300 lits ça veut dire que hôpital bu dee bu dul hôpital Saint-Louis bi ñu tabax de dix milliards hôpital bi mooy nekk hôpital bi gën a rëy ci région boobu yëpp. ñetteel ba ñu am benn autoroute à péage boo xam ni commencé nañ ko defar te mooy autoroute à péage Dakar Thiès Tivaouane Saint-Louis gis nga loolu dafay indi benn impact boo xam ni avec les hôtels. yi nga xam ne ñoo nekk a à Mbour ñu nekk à Thiès nga xam ne ils ont une capacité de 4000 lits te le tourisme d'affaires les congrès am na benn congrès bu ñu demoon en 2014 à Fès qui a regroupé les 47 pays yoo xam ne ay tijaan ñoo fa jógee ñëw def Fès def fa benn congrès de trois jours gis nga loolu Tivaouane est très bien positionné tey jii pour organiser des manifestations de ce genre jëlee ay nit partout te gis nga le tourisme d'affaires dafa am une de dafa am euh, bokkut ak touriste simple dama la koy jaxle ci misaal touriste simple bi fi mu waree dépenser dix mille à quinze mille francs par jour le touriste d'affaires mën na fa dépenser cent mille jusqu'à cent cinquante mille francs par jour parce que dañ leen di jox ay per diem dañ leen di jox ñu demee noonu ça veut dire quoi si tu as projet de congrès de mille personnes à Tivaouane pendant trois jours ñu am cette capacité de de de de de de dépense la dinañ man tey ji en en trois jours regrouper lu mat trois cent millions ñu dépensé ko fa en termes de restauration ak yu demee noonu donc nañu xool bu baax li nga xam ne tey jii Tivaouane war na ko mën a positionné wu sur le plan du euh, ci tourisme d'affaires am na ci ay congrès yu bari yoo xam ni c'est à caractère islamique ay sommet COMIAC ak yu demee noonu Tivaouane peut se positionner parce que quand même les conditions d'hébergement de sécurité parce que tey jii boo xoolee Tivaouane am na quatre sorties Mboro Thiès euh, euh, Saint-Louis ak Xombol yooyu yëpp ay sortie la bi nekk nii bi nekk nii et cetera te Mboro dafay joxe sur la mer tey boo demee ci sànq congrès salle de congrès yi nekk fii bon bon peut-être euh, méridien ça donne sur la corniche day am embouteillage CICAD peut-être moo ko am te day donner juste sur la sur l'autoroute à péage Grand Théâtre day donner sur dafay am embouteillage foofu beneen salle de con Sorano dafay am embouteillage euh, euh, yeneen salle de congrès yëpp si ses ça donne sur l'autoroute dafay am embouteillage te foofu doo am embouteillage doo am donc pour organiser la sécurité des pèlerins ba pare on a construit là benn salle d'hôte benn maison d'hôte non seulement il y a la, la salle de conférence de 3000 places mais il y a l'auditorium de 700 places bi nga xam ne mooy salle bu xonq bi bu ñuy wax salle bu xonq bi foofu tamit ça peut euh, accueillir des congrès de moindre mais toujours de dimension internationale boo amee yooyu yëpp ci benn gox ba pare mu benn maison d'hôte boo xam ni c'est de standing présidentiel yaakaar naa ni li nga fa mën a organiser en terme de congrès day bari boo ko mooy sur le plan du tourisme d'affaires le tourisme religieux tey jii boo xoolee dëkk bu mel na Makka boo demee Makka ils ont à peu près six de pèlerins par an si six millions de pèlerins yooyu am na ci un euh, pèlerin bu nekk am nga capacité de dépense de dix mille euros par par par par pèlerin soo ko dee xool ça fait soixante milliards d'euros soixante milliards d'euros c'est quarante mille milliards de francs CFA quarante mille milliards de francs CFA c'est sept fois le budget du Sénégal ci benn saison gis nga màkk bi ñu commencé di def euh, aj bi naan jëluñu ko woon trop trop trop au sérieux parce que pour ñoom pétrole bi am nañ ko et tout ça mais ay britannique ñoo ñëw ni leen gis ngeen pétrole yi ngeen di wax nii ala kulli xaan dafay dem ba ba raaf seen économie li ko war a tenir dëgg dëgg dëgg ci fan yii di ci at yii di ñëw nii aj bi la moo tax tey jëf nañu ay moyens yu extraordinaire pour gën a yombal aj bi ba pare les conditions d'hébergement ñu amélioré ko tey boo demee mun na ni nga daan demee foofu di rang ci ay wanag yu demee noonu yu ci bëri dafa amélioré wu parce que xam nañ ni que aj bi dafa nekk lu am importance gis nga tey jii ñun buñ ñu positionné woo ci tourisme religieux dafee ko nu mu waree am fa ay bibliothèque dafa ay euh, dafa ay musée dafa ay loo xam ne tey ku ñëw Tiwaawan doo yem rek julli wasifa daal di naafi la dem sa yoon di nga mën dem ci jàkk-jàkk bi mucc ayib avec sonorisation bu extraordinaire nga mën fi jógee ajuma midi dem Tiwaawan jullee fa juma euh, def fa yëfi njoobeen ak yëfi njaayeen toog xaar tàkkusaan ziar raw di xaar tàkkusaan julli fa tàkkusaan xadara fa julli fa timis wasifa julli fa gee ñëw reer si sa kër loolu bu fekkee ne am na ay investisseurs yoo xam ne tey ils sont mën nañu tout de suite accéder à ces différentes euh, potentialités ñu exploité ko ba nga xam ne tey incha allah jàkk ji day am jeexital non seulement ci taalibe yëpp mais ci gox bi nga xam ne fa lañ ko def dafa am jeexital gis nga bi ñu amee la révolution iranienne ñu bari dañ doon wax affaire fulaar est-ce que farata la du farata est-ce que war nañ ko imposer jigéen yeeg yooyu mais gis nga couturier yi nekk France bugguma citer seen tur ñu bari mais les grands couturiers français ils se sont tout de suite rendu compte que en Iran marché de 1 de foulards te fulaar bu nekk bi ci gën a yées cent mille francs lay jar kooku c'est cent milliards de francs CFA dañu daal di daw jaay fa ay fulaar de luxe nga xam ne tey jii ñoom ñu ngi nit ñaa ngi doon est-ce que xaraam naag dagan naag war nañ ko imposer ñoom ñu dem écouler seen marchandise yëpp de la même manière gis nga tey jii boo jëlee jumaa ju mel na Tivaouane yow na nga xam ni déjà y des opportunités di nga dem a dem a dem ba tey pour am kër Tivaouane sax dafay nekk problème nga dem fexe ba jumaa ji lu mu gaaw gaaw gaaw nit ñi fexe ba mu yegg ci jàmm taalibe yi bu ñu demee am dëkkuwaay tamit daayira yi fa nekk ame fa seen kër di ko tëj atum lëmb nga xam ne tey ñaari at rek lañ koy ñaari yoon lañ koy utiliser mooy gàmmu gàmmu gu mag ak ziar général ñu mën ko exploiter kay ku fa bëgg a dem passé fi weekend nga mën a dem dëkk ci kër ga dem passé fi weekend mu indil non seulement daayira yi ay ressources mais aussi dafay améliorer condition de de parce que kër gi boo ko tëjee noonu deful dara dafay dem ba mujj fënax donc dangay ngay fexe ba kër gii di ko utiliser yu demee noonu en tout cas il y a de très très très grandes léegi nag loolu non seulement dafa war a nekk loo xam ne taalibe dañ ciy taxaw kër gi def ci taxaw mais état bi daf ci war a taxaw municipalité bi def ci war a taxaw on parle d'intercommunalité mais aussi interdépartementalité cette région est une région fertile 80 pour cent des légumes utilisés à Dakar bi ngi jógee dans la zone des Niayes foofu lay jógee ay Mboroog Nootoog yu demee noonu donc yaakaar naa ni bu ñu jëlee yooyu yëpp combiné ko am fa une grande bibliothèque une grande université une de grands musées ak yoo xam ni dafay permettre nit ñi ñu mën a euh, dindi seen kumpa ci dañ gis ci ay euh, li nga xam ne moom la fi Seydi Hadj Maag bàyyi lan mooy tariqa bi ak yeneen yu yemee noonu yaakaar naa ni ñi ci mën a jëriñu dana bare bare bare ba day am impact ci ci ci may ma xam naa ne bu ma duggee ci yii moom dama ci xaabaabal ngeen baal ma xam naa ne seen temps sax bariwul ah, ah. waaye vraiment dama buggoon rek ñu gën a insister invité plateau spécial parce que xam naa ki nga xam ne mooy Mamadou Awa euh, mës na la invité plateau mu nekkoon lu am am solo et que waxtaan bi neexoon na euh, voilà ndax man loolu seetaan naa ko macha allah mm. donc euh, xam naa bu ñu la invité ci plateau bi di nga gën a mën a yaatal e que xam naa mosquée bi également ça te tient à cœur e que voilà et que donneurs yi aussi ils sont vraiment généreux ndax li ngeen li nga expliqué nii rek mm. donc macha allah ay milliards Dakar jëm si li nga xam ne euh, mooy mosquée bi donc euh, ça m'a beaucoup fait plaisir euh, Cheikh Oumar Sy mm-hmm. Djamil mm-hmm. ma daal di def entretien ak yow ci korité bi mm-hmm. donc di la jaajëfal bu baax a baax bàyyi la rek nga daal di tàggatoo donc voilà man maa gën a am mbégte ci dikk bi ngeen dikk fii fekk ñu fii soxna Kenya ñoo ngi lay ziar bu baax a baax di la ndokkeel yow tamit ak équipe bi nga àndal leen ñaanal yàlla yàlla jëmale télévision bi kanam ak kilifa yi nga xam ni ñoom ñoo fa nekk yëpp ñoom may mun a nuur ñu leen di ñaanal yàlla bu baax émission bi nga xam ne moom ngeen di def tamit foofu yàlla barkeel ko waaye di ñaanal yàlla xalifa bi di ñaanal yàlla kilifa diine yi ne Sénégal yëpp di leen ziar bu baax a baax a baax di leen ndokkeel di ñaan yàlla Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na fi yàlla def jàmm lu dul jàmm jàmm ko gën nit ñaa ngi ñaan ñi ngi téye seen kurus ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla bu yàlla yàlla bu mu nekk suñu mujj euh, julli yàlla bu mu nekk suñu mujj jataay yàlla yàlla def xéewal yàlla def sutura ci njaboot gi ñu ngi leen di ziyaar bu baax di leen baalu aq jusitum xayran wakku fiitum charran wa ma laqaytum ma baqaytum durran li ñu desee yàlla buñ ci dajeek lor yàlla buñ ci dajeek lu làmb lor ngeen baal ñu àq bu baax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi wax fii nag ci ndigalu suñu mag suñu xarit sëñ Mansour Sy Djamil ak njaboot gi yëpp ngeen baal ñu wax wasalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala barakatu euh, je pense que euh, li ngeen gisee euh, entretien bi rek am am na solo lool tey képp koo xam ne maîtrise wul woon li nga xam ne mooy mosquée Tidiane bi nga xam ne ñoom ñoom ñoo ko daal di defar donc lépp leer na nañ donc j'espère que aussi ni ma toogee ak moom di waxtaanal moom ak sama kol bu yiw sell bi aussi neex na leen duma fi daal di yem rek di dem également non seeti waa PDS pourquoi pas ah wala waa APR pourquoi pas wala sax waa Pastef dem seeti leen xool ñoom aussi euh, seen korité bi naka lay daal di demee foofu la ñuy daal di terminer rek bi di jaajëfal bu baax a baax euh, euh, Cheikh Oumar donc aha ñaari omari également donc léegi léegi rek dañuy daal di daal di dem seeti suñu dernier invité bu ko defee ñu jeexali ak moom foofu